li ma bëggoon euh, éclairciral suñu suñu mbokk sénégalais yi nekk foofu euh, mooy ñëpp ñëw nañ gis nañ ne Pepito moo nekkoon entraîneur aigle de la Médina indi leen ci compétition bi. bi ñu ñëwee ñëpp gis nañ ne premier match yi kenn gisuma maa ngi woon ci kaw tribune yi parce que du woon len du woon dara euh, inscription yi ñu defoon moo baaxul woon moo tax mënu ma woon toog ci baa bi mais deuxième match bi defaraat nañ ko rectifier nañ ko deuxième match bi ñëpp dinañ ma si waat ci